te li ci ëpp ku joxoñ rek ndaw ñi ngay joxoñ ndaw ñi nag dafa am lu leen gàllankoor ndeysaan bu ngeen xoolee li wër fii yëpp macha allahu li ci ëpp ay ndaw lañu te nag booy seet des fois dañ leen di tooñ parce que ndaw ñi danoo jaaxle jaaxle bi mooy lan rawatina nag ci wàllu diine tantôt ñu ni la lii tantôt ñu ni la lële da ngay dem ba dispersé wu xamatoo foo jëm loolu dal na ndaw ñi lu tax discours diine moo yomb yomba goo xam ni ku mu neex nu la neexee fu la neexee nga dugal da ngay xëy dégg lii balaa ngoon nga dégg leneen xale yépp a jaaxle xamatuñu fu ñu jëm lu mu jul benn vide spirituel dadi loo xamante ni fa nu jëmee dañ ni alxuluwu ni extrémisme iyaakum wal xuluwu fi diini la yonente bi waxoon démb loolu lépp ah dal ndaw ñi waaye li am solo dañu ni woote ni Seydina Limaamu gis nga woote Seydina Limaamu mënul génn alquran te génnul sunna déedéet benn la bu ja asalukum mu ni an diinikum muxaatiban awliya al umuur ma huwa diin luy diine maa ngi leen di laaj ba mu jëkkee wax ni uusikum bil iyaali maa ngi nemm njaboot gi waaye joxoñaat ni asalukum nag an diinikum ñu mu waxal mooy way yar yi te kenn jiituwu ci njaboot gi ci kër gi cest à bu ci ëpp solo c'est la cellule familiale al usra asalukum ye an diinikum parce que la mu ci jublu diine ja ci wàllu yar moo war a jeexital ba ca njaboot ga mais bu leen ci dégg yar macha allah njaboot ci jiitu waaw mais nag ku yarawul nu mu yare ñu dugalaat beneen élément yar mooy jubbanti lu dëng jubalaat rek ñu yaakaare ci jànguwaay yi muy école te bu la neexee sax nga dugal beneen élément ci jullit ñi mooy jàkka yi ndax jàkka yi faate ak saar kese la ci lislaam amoon wala war nañoo yaraat kon jàkka yeet war nañoo nekk relais jëm ci société bi rawatina xale yi mais bu dee na entre quatre murs allahuma ëf ëf dem déet donc jàkka fa lañ doon jàngalee démb fa lañ doon yare jàkka sax demoon na ba nekk état major institution sociale la mais bu yamee ci nangam mooy ni kon ñi koy jiite war nañu leen a former ñu xaw a méngoog tendance bi am ci jamono asalukum an diinikum la Seydina Limaamu wax ca xutba ñu ni maa huwa diin atta pour gàttal ka al inqiyaad omatu jëm ci kenn mooy yàlla moo tax ba bay lay ñëwee ci babu nasiha an tuwahhidahu kan mu ni yàlla mu ni nay kenn nay kenn nay lenn kon bu diine yépp nangamee nag diine doon nangam nekkat comportement boo xamante ni day war am jeexital masha allahu ci ki nga xamante ni macha allahu ah moom la diine kon yar dafa am solo ci li ñuy bëgg a wax diine jooju ma leen wax mais jeexit jeexital yi nan lay nekk ci yéen rogalaat ci njaboot gi moo tax dafa am lu mu wax moom ba tey inna haza waliduna ñu ni lan mu ni lam yu addib na ah walam yu allim na mu ni shay'an min kitaabillahi kitaabullahi ci Seydina Limaamu danga nga cey jànge ni bàyyi laay ak tarbiyal islamiyal ilahiya ca la yare ci alxuraan la tibbe pour yar loolu moo lay màndargaal ni école yar yi nag bari na xam-xam yi yar ni bari na waaye ba nga ne yàlla an tuhidahu bàyyi ni na nga yaroo جه القرآن الكريم موتخ لم يأمن شيئا من كتاب الله وأحسنوا أدبهم لين تقدم نينا ترلين سين جابوت أك سيني دوم تنجين رفتال سين يارين من حق الولد على الوالد أن يحسن أدبه ويحسن اسمه nee na moom yonent bi bokk na ca la doom di nangamee waajuram mu rafetal yaram rafetal turam bu ngeen déggee loolu yonent bàyyi lay waxat ca xutba ni walam yusammina isman min asma'i saalihin kon wax yi daal di gëndalikoo nga dégg ca yar yamul ci nangam damay wax ni nit danga jël sa doom dugal ci moom loo xamante ni bu duggee ci ay nawleem ci ay tur bu ñu nee diw ñëpp a geesu dinay crée ay complexe même ci xale yi da toog benn mètre lim ñu tudde wenn tur ñëpp a geesu waajur exemple le wara a doon nena naa yof conflit de génération amu fi dedet nit ku ne ndaw ñi il faut ñu len di déglu nee len ko xamanteni bala 10h nga teud xandor di neraw xalé yi ne ci nga yewu ni ya len di wax lu ni ci da ngay nax sa bop xalé yi yow balaa dix heures yaa ngi xandoor di nelaw bi nga koy def xale yaa ngi ci mbedd mi ne ci lu ne asamaan set nga naan leen tey nga wax leen li ci mbedd mi mani dangay nax sa bopp quelque part nanuy bàyyi xale yi ñuy xalaat waaye xalaatu xale yi mag ñi seen sagesse ak seen nangam war na cee mën a nangam nag waaye nag exclusivité nit ki am que ni man rek maa war a mën a dëgg ci lii maa war a nangam déedéet déedéet xale yi am nañ ci cër bu rëy rëy wa kayfa tahfazuunahum min azayqi wal fasaad yéen waajur yi naa li mooy wax de waaw yéen nan ngeen di muccale seen njaboot ci ay mbon mbon ak leneen yow sa njaboot gi ci mbedd mi nee naa la toppatoo woo ko ba xamoo xamoo lu fu ñu fanaan ak fu ñu jëm dix heures ma ni xandoor nga waaw xandoor nga kon dafa am loo xam ne ay responsabilité la loolu mu wax moom Seydina Limaamu wa kayfa tahfazunahum min az-zayqi wal nangam du kuy tëdd di nelaw xamoo lu xale yi fi naane wala lu nu yendoo loolu lañ tudde nag li muy jur mooy al inxiraafu suluki mooy xale yi dem nag li ñuy tudd al xulu mooy lu ëpp tuuru lu ëpp tuuru woowu nag la yonente bi alerté woon ni iyaakum wal xulu fi diin gis nga loolu moo dema dema dema dema dem ba moo jur extrémisme mooy ni xalaat wax naa leen que al amnul fikri nee naa leen bopp dañu koy defar bu waajur yi walla société bi taxawee te boolewuñu seeni force yàlla ay force obscure lay jël ñuy nëbal boppu xale yi te li ci des nag facteur bu ñu bari di bàyyi xel la nee naa leen xale yi dañu nekk ci ñaar mooy nit diine wax naa ko sànq dafa ñëw ngir tette mais xale boo xamante ni bu subaa nga waar ko ci lii yow mi koy waar waar woo bu suba nga bañ loo ko àdduna te yàq gën a bëgg bu suba nga yóbbu ko almalawul ala dëkkal ko ak malaaka yi te nit nga <laughs> xale yooyu mais ñooy yeewu di gént di wax en ce moment ay nit a ngay produir di taxaw ni cëpp a taxaw yow ngay nelaw rek loolu mooy pousse lenn na ci ay xale ñoom déggu bëggatuñu sax dégg diine tellement que ni daal déception la ñuy am lii ngay dégg suba fii bu subaa nga dégg fëne diine dem a dem a dem ba mel ni tàngal kon yooyu ak yu koy niru bokk na ci cause yi indi musiba yi ngeen di dégg muy am moo tax xoolal Seydina Limaamu yamu ca ca mag ña walla parents ya nga xamante ni yàlla may na leen bien sûr yàlla crise économique lépp am na waaye nag bu la yàlla mayee tuuti bàyyi lay nee na tuut tànk yaak ndax ak xale ya waaye nañ ca ñam moo xam fa ñuy fanaan la mo xam la ñuy lekk la mo xam mo xam yi yeb nak c'est des facteurs yo xamanteni ni ko jangate ni rek dañuy daldi di nanu creuser la société nee la yalla man loola gan la la yalla denk njabot ndenka ne la nga négliger len xamalo len comme nimu ko waxee yaro len lan lay jur bokk ci cause extrémisme Diga xamanteni tay dina ci ñëwaat extrémisme ak terrorisme wax naa keroog ñaar la yu bokkul lële xalaat bi la lële mooy appliquer xalaat bi xalaat bu demee ba ñor yàlla pauvreté ignorance ceci injustice ak lépp dajaloo ci benn bopp moo war a xëy xale yi bëggatuñoo gis diine parce que ce qui comme projet de société méngoowul ak kuy xalaat Lolo waral ñen ñi am bëggatuñu sax dégg diiné loolu ci ay cause yi la yi ñuy jël du tabou. parce que fi jamono tollu la té ndaw ni te say kon ah gars diine ji ci la waaye adduna ci la <laughs> diine ji moo jiitu lépp comme li ko Seydina Limaamu waxe xoolal ba mu ñëwee ñëwaat na ci pour leelal sa njaboot leelal sa njaboot liggéeye kay indi ak koom-koom nee naa leen ca yoof suñu maam Ibrahima ba mu ñaanee sécurité ca Makka da teg lu ñuy def poos yi dara nekk ci warzuq ahlahu min as-samaraati ki nga toog xëy kàbbar amul dépense amul ceci amul nangam la pauvreté ne nangam nga gën a pousse nit ñi ci pauvreté parce que doo leen liggéey loo li liy dugg ci seeni nopp bu subaa dañuy nelaw di xandoor ba noppi bëgg am ah ah moo waral fii ngeen toog tey muy Cambérène Seydina Isa mii tëdd fi waxambaane fii toll ci liggéey daawoo ko romb fii boo eh kaay bu mu ñëw mu ne looy def ci dëkk bi acca moo waral dëkk bi am na suba teel ku xamoon Cambérène da gis nit ñëpp ay génn di dem bu ngoonee nga gisaat dëkk bi nit ñi di ñëwaat loolu signe la ci boobu jamono daañu nangam seen diine damit jëf liggéey fii ñu tollu tey fii ñu jëm xale yi ñoo ci ëpp solo gars yi adduna laa ni ci la sama baay moo leen ñaanal àllaaxira mais man Seydina Issa teg naa ci adduna dafa wax la fii jamono tollu tey ku bëgg a jël nit ñi ci théorie malaaka ya mais ay robot lañu mais yow nit nga sa discours archaïque et dépassé du yëkkati réew te du yëkkati ñeen te dul gën di gën a dëgëral les inégalités la pauvreté kon gars yi laysa bi xayrikum man taraka dunyaahu li axiratihi ولا آخرته للدنيا حتى يصيب منهما جميعا فإن الدنيا بلاغ إلى <laughs> بلاغ إلى الآخرة ولا تكون كلا على الناس واي فوتي ني دنج فاي جيل نانغام لو ني دنج تشوف لي خيو تاي سي ادونا بو ديفه خول نداو ني désespoir moo leen dugg waxoon nañ ko fee at ñii dugg nañu géej gi ñii dugg nañu fële li ci des diine am na ci responsabilité en tout cas ci lima xam parce que am na ci lenn ci ay discours dafa jur déggu ci ay nit pour pourquoi téye nañu diine dëkkal ka foo xamante ni mission diine mooy defarnu boo mission diine nag bu demee malaaka yaa koy yor feneen te doo gis malaaka te xamoon nu mu reer te yaa ngi reer di biddanti dañ lay nax loolu lañu tuddee wa tatajalla azmat al faraagu lu al ruuxi c'est la famine spirituelle kon nanu bàyyi fexe sunuy ndaw ci wàllu diine lay wax ndax ci këru diine lanu taxaw di wax discours bi war a génn ci diine warul dafa war a nekk diine dafa man dafa mas di libere mais bu ñu demee ba tëj xelu sunuy ndaw du ñu produire bal yi ngay dégg téyel ma ay ceinture yu ñuy taal ak nangam nangam nag ay xale yu ndaw ñoo ko def mais statistiques yi bu ñëwee topp rek naan nangam nangam ah, ah dafa am ay yoo xam ne diine am na ci nangam. discours diine moo xaw a doy nee naa la xale yi koo ci doon interroger manumaa taxaw man Seydina bu subaa mu wax bi discours balaa midi ma waxaat leneen bu subaa ma waxaat leneen mais kon kuy yàlla luy diine kuy nangam mu ne ci rek ci boppu xale yi te bi ci gën a dangereux bi ci gën a dangereux fii jamono tollu tey am na loo xam ne la moment bi ngay toog ñu la koy jox yaa ngi gëmmantoo ko nelaw moment boobu ñeneen ñi ngi produire di dem et en temps les inégalités gën a sampu gën a nangam xale yi fippu di fippu ba takk ay ceinture di taalante kon nanu bàyyi xel xale yi li Seydina Ali waxoon mu ni rabbu abnaakum li jiilihim fa innahum qad xuliqu li jiilin gayri jiilikum Seydina nee na bàyyi leen yar leen xale yi te xam ni génération lañu boo xamante ni bokku leen ñoom génération dama wax ni te muy dëgg ku jël xale yi ma ni ëpp fii sont là am yaakaar kilifa yaa ngi nii ci diine am yaakaar ci lu baax am na ñoo xamante ni depuis ñaari at lii rek la ñu bëgg kon bu nu jàkkaarloog ñoom nanu leen lu wax xaqiiqatu diine luy dëgg dëgg diine dafa mel ni diine jàkk rekk ka fi andi ñu tëj fa nit ñépp dama ni diine bu ci mbedd mi bokkul ma ni jàkk du fonctionner du yëngu anu sakaat kon thème bi nga xamante ni et moom la la euh, la commission scientifique daañu ko développé feneen benn aspect bu ndaw rek lañ ci wax laal ci nangam mais fi may tëje ñu ngi ci jamono bu nga xamante ni fii ñu toll nii tey ci suñu réew ak li nu wër ku taxaw ni la sécurité à 100% pour cent mi ngi fi day wax lu ko neex déedéet ay alerte am na rawatina nag ci ndaw ñi ay at nu ngi koy wax muy état seul laa ni mënul sécuriser à 100% ces populations sans la collaboration de ces populations li nu wër war na mën a tax sénégalais yi bàyyiwaat seen xel ci ni réew mi nag yàlla def na fi lu am solo mooy ay këri diine ay mag ñu baax ñoo fi yeewu li ñuy tudde islam confrérique ay mag ñoo ko liggéey ba am ngërëmal yàlla waaye bu nu sàgganee ak li ma gis loolaa ngi commencé dañ leneen a ngi fi dugg si te gars yi bëgguñu ko laal li nu jàmmal nun Sénégal bu waxtu wi moy lool nee naa leen insister insisté wuñu sur la citoyenneté dañu yak suñu rew Sénégal du rew majorité minorité rew sénégalais yi la bis bu nu jëlé tariixa sangam mo ëpp tariixa sangam genn ni église bi bokatuñu kee bokatul moy ni ray nañu yàq nañu suñu rew Sénégal bu amé stabilité politique am lepp li composé mooy loolu këri diine yi ci lañu jàngu bi ci lañu hein n'est-ce pas ak mais gis na ni ñu koy faxas ndank te bis bu fi jógee ñun ñëpp wa tallahi li dal gaay lu ko raw mo nuy dal li tax nu am jamm ba waxtu wi macha allah kuy sénégalais war na ci nang a commencer par le pouvoir public. la citoyenneté lani ni na nekk liy sénégalais bis bu fi jógee ñu naan kii moom ñii ñoo ëpp ñii kee moo ëpp ñële jàngu bi bokkatunu leneen bokkatul billaahi wa tallaahi suñu réew tàkk kon nag yéen ñi nga xamante ni moo xam ci média yi la ak ñeneen rawatina nag suñu kilifa diine yu baax yi seen rôle la kilifa diine yi réew mi bu àggee fii ci stabilité da ngeen cee joué yu rëy mais am na nag troisième colon xam nu ñu leen di tuddee nii état amul benn sëriñ bu ñu gëm déedéet bis bu ñu sagganee ñu dóorante këri diine yi saggan ba li ñu may sunu doole gaa yi jëli ko fi xamatuñu fu ñu jëm kon nanu consolider la citoyenneté mu nekk loo xamante ni tous les sénégalais dañuy retrouver wu ci la citoyenneté mooy mu war a mën a tax ñu war a mën a jëm ci kanam jàmm bu amul laani dunu tala produire dunu para liggéey nee naa leen bu jàmm amul tey bu dee budget national la vole sécurité lanuy jox la ci ëpp bu boobaa santé dina daanu bu boobaa éducation dina daanu bu leneen daanu mukk lu muy créer déséquilibre kon gaa yi jàmm ci la te fondement la cohésion sociale moy liñ fi le peuple sénégalais Nous, ñëpp ñu retrouver ci essentiel pour consolider la citoyenneté té là, ci la ilaha amul justice sociale comportement la lépp la defe naa ni loolu la fi bàyyi lay indi jël société muy une société égalitaire aduna bépp sax fa la ñu bëgg a jëm tey tey ku ci ne dem nga ba xam ni manoo kon li yàlla def ci suñu réew mu jàmmal nu bu waxtu wii ba fii ñu toll nañ ko gën a consolider li ci des nag réew ci ay contradiction la koy wax mais nay doon ay contradiction positive le vivre ensemble na ne di dëgëral fii ci suñu réew bu ñu am benn complexe ci suñu réew li ko taxawal ñu mën a taxaw ñun ñëpp moo xam sëriñ nga moo xam leneen nga loolu na nekk hymne bi sëriñ Ablaye doon def fële ca Yoof ci kër tarixa yëpp loolu benn la mais booleet beneen composant mooy jàng muy muy jàngu bi ci lañu nag kon loolu rekk lay wax di nuyu di gërëm di santit kilifa yu baax yi di ñaan yàlla lii nu ubbee fii yàlla nay doon teraanga sutura ak lépp ci ñépp nag ci ñépp ci ñépp dama ni ñun bu dee jullit lañu ni ajjana lañu bëgg ajjana dolo la wax waaye ajjana bu fa benn tariixa nekkee moom rek dina wéet bu laa yen toogee ajjana ñoom rek daanu fa wéet de ajjana rëy na de bu fa murit toogee gën a wéet kese tijaan ñëw wéet xaadiree ñëw wéet teenu kaa bokk ñun ñépp allahuma salli ala sayyidina muhammad